mais damay jëfee kàddu yi gën a àddu yàlla dañ ko xeeb loolu nag. waaw day yeesal suñu pas-pas suñu taal bi bu baax ñu ko suñu saali saal ñu waxee rek ñu tàmbali yow lañ koy tàmbalee ndax yaa fi toog jotaay si bu baax ziyaar sa kilifa yu baax yi fi jaar xam seen jënd si seen misaal yi jiital bi mu la jiitaloon taxaw bi nga taxaw jàmm ci seen jibaay xam ni fam sa diggante sëriñ bi nga xam teewoon ba heure ba jant ba xawaale ñu jotaay ñu jotaay bànneex ci mbir ñu koy fàttali ñu saa yëpp di sant bu baax nag ñu ci jàll ñu sa ndigal yow leen yëkkati woon ñu indi yi sëriñ Béthio dañoo sa sëriñ bu matee ab sa njariñ te baax loo wax loolu lañu wax loo waxul waxul mbàkke day man nga xëccuwuma doon xalifa ñoo ngi bu baax di wax ni ba loolu jógee ca saasa damaa daal di wax lu ndax boobu ñu ngi ci liggéey bi te wax waru maa daal di wax lu ca saasa ngir ñu wax ak taalibe yi ñu di jëfe ndigal Mbàkke day man euh, nag bu baax ba loolu weesoo muy sa ndigal lii nga yëkkatiwaat muy Tuubaa waaye ñu lay xamal ni Mbàkke ñoo ngi te soowu te tool ya waaye foofee lañ koy tàmbalee ñu ngi sant bu baax a baax di la wax lii bu ci topp mooy Mbàkke day man nga xëccuwuma euh, doon xalifa ak taalibe laa taalibe sëriñ Béthio laa mu boole ma ak sama rakk yii ñu àndee liggéey bi ndax kat ci saa yi dañ naan dañuy sànnan ñi nekkoon ci kër gi sàn sànnantey wat waaye nag dañoo dem ba xam ne ay taalibe lañ xam ne ci mhm. dem ba xam loolu sóobu ci liggéey Serigne Touba bi mhm. mu ba tey mu boole ñu ñu ànd liggéey kenn ku ne ci ñun nag dalaa jiitaloo mbooloo muy kat ci ndax organisation la mu jiitaloo ñu jël ay jëwriñam ku ne mu toxtal la. Mhm. ngir mu àndee liggéey liggéey. ci loolu nag mu def moom mooy seen jiit. waaye man la wax nag Mbàkke ñun taalibe rek a ñu ci ay ci taalibe rek lañu fas yéene waat ndax ci loolu lañ si biir liggéey bii nga xamante ni moom la doon liggéeyal Serigne Saliou ñu liggéey bu ba faw ci loolee lañ boo hmm. xam ni mbooleem ku sëñ Béthio jaboote te tey jii Mbàkke ngay suñu mbiir jaboote ñu ñëpp ñoo koy wàcc ñoo ngi koy waajee noo xam ne kat ndax moom day màggalu Serigne Touba bi fa mu ko tegoon hmm. ci passif ci bëgg ci yitte foofee lañu foofee lañu sóob ci loolee nag foofee lañu teg suñu tànk fas yéene koo jëf te fas yéene koo ànd ak yow la ca des it mooy dëgg yàlla sa liggéey bu mag bii nga sumb muy université bi loolu it Mbàkke bàyyi nañ ci xel te ñoom ci dox ak pas-pas ak passif waaw bëgg rek bu màggal bi daal jàmm dikk ñëw andi nag suñu jëf ñoo ngi lay sant bu baax. waaw tey tey sàkku sa ñaan ndax ay soxna lañu waaye gëmuñu lu dul Sëriñ Tuubaa waaw bëgguñu it lu dul Sëriñ Tuubaa te fas yéene koo liggéey nag. tuuti leneen nag doon taalibe rek te doon jëriñ nag tool bi fas yéene koo liggéey waaw ñoo lay sant bu baax ci teeru bi ci dalal bi ci ñi nga dalalee suñu xel.